am mbégteeg bànneex topp gee ñuy topp su sunu seen Média Live Dakar deux cent vingt ans dëkk ak say xibaar door ak ak njiitum réew ma fi nekkoon président Macky Sall si weddi gi nga xamante ne si ne rek weddi na ko gu génn gu Ousmane Sonko premier ministre génnoon xamle woon rek fi mu fekkoon situation réew mi moom kooku di président Macky Sall daat koy weddi ba mu set wecci xamle na rek ko lee Ousmane Sonko génn wax loolee lépp rek c'est totalement faux te li nga xamante ne si na loolu la sa wax danoo falsifié li xamante ne si na moo di ay données économiques moom kookee di président euh, xam la lu mel noonu moom it texte rek di wax ne bi muy génn si réew mi rek lépp daati normal lépp daati jaar si yoon moom kookee di président Macky Sall daat kay weddi ba mu set wet xam la ne daal moom ba muy génn si réew mi daal lépp jaar yoon te lépp rek moo daati euh, tegu si yoon moom kookee di njiitum réew moo fi nekkoon tam muy wax na rek leb gi nga xamante ne si na doon nañ ko doon leb nekkul na rek dañ doon leb pour bëri rek li nga xamante na moo di ay bor waaye nag pour rek defar li nga xamante ne si moo di développement réew mi ndax nag amul mennum réew mu xamante ne si na rek dafay daal di développé te nekkul na rek dafay daal di lépp li nga xamante ne si na rek moo di famille jaar pour euh, développé moom kooku di président Macky Sall daal di xamle loo euh, mel noonu te xam muy xamle sa nag moom li mu liggéey si réew mi jëm si wàllu administration ak leneen li nga xamante si daal nag liggéey si réew mi daal mu ne loolee jorul sax daati débat ndax na nag ku daati euh, xool rek di nga daati gis li nga xamante ne si na loolu la daati liggéey fii si réew mi moom ko di président Macky Sall daati xam la lu mel noonu ginnaaw bi xam ne weddi na kàddu yi nga xam ne moom Ousmane Sonko yëkkati lu jëm si wàllum élection législative yi njiitum réew ma fi nekkoon président Macky Sall yëkkati say kàddu xam la na rek dina daati ñëw daati bataar li nga xam ne moo di campagne pour rek joppale opposition bi nga xamante ne si nam daati na fi nekk pour daati bañ euh, ëpp ci réew mi ñi fiy nekk jamono ji daal di nasaxal fëskee na rek daal jël réew mi dugal ko si guuta loolee rek lay daal di bañ ba tax na rek muy xam na dina daal di ñëw fii si réewum Sénégal si élection législative yi fëskee na daganaat baatu askan wi daal ref def def li nga xamante ne si nag moo de ak campagne loolee nag askan wi ba tey am na ñenn ñoo xam ne ba tey gëmagun ko waaye nag ba tey ña ngay ibbi seen i gët di xool ndax loolee mbir ma xam fan lay di mujjee ndax njiitum réew mi fi nekkoon Macky Sall dafay daal di ñëw wala nag ba tey ay wax yi kese lay doon kan nag ba tey askan wi ña nga taxaw temm rek di xool ndax mbir moomee rek fan lay daal di mujjee si kooku di président Macky Sall.